trois espoirs. moo am problème wala tànk wala lum doon badu Sam Mbaye maa ngi lay ziar eh, Sam ziar naa la baay dee ra ay ca bu ngi vraiment kontaan naa trop nag. non attends. alhamdulilahi rabbi alamin alhamdulilahi rabbi alamin alhamdulilahi rabbi alamin jëm téeri félicitation amen nee na jëm téeri félicitation ba pare félicité ki nga xamante ne mooy jëm téeri ndeysaan ba ma ko ber ndeysaan kon ko xol bi neexul Bamako ngee. waa Bamako ee. ndeysaan Bamako tey xol bi neexut. waaye nag. maa ngi lay bëgg bu baax di la siyaar. waaw maa ngi sant yàlla. yaa ngi góor maa ngi góor bu baax a baax naan nga nox naan. non naan naan rob bu baax. tey nga indi sa doomu ndey. waaw tey ma indi sama mag. sa xarit. ak sama xarit sama lépp. sa mag sama mag ki ma teete si bëre quoi. parce que tey bis bii nii dafa ne bis xamante ni Kayar moo ko soxla mu nekk koo mbër moo xamante ni tey dañ ko war a dégg fu sori te te dafa tardé waane du ak yaa fu sam quoi parce que ni bëri da dem war a daan dem moom day daan di arrière adversaire yi nga koy jox doon ay naataangoom. kon combat bi am na lu mu ko porteur bu bari loo xamante ne pour bu daanee mu dem yoonam asilam. mais gis nga ki muy bëreel Ahmed Deme. Ahmed Deme xam naa aussi sama grand la moom deme damaa teel rek na ma quoi jaar naa caaray nekkoon si baaram doon kontaan ak moom doon nekk moom tam aussi xam naa ko bu baax mu nekk ni ku baax tamit aussi parce que nag dañuy deret jam deret la quoi nekk dëkkandoo nekk mbokk nekk nekk kon nag nga ñaanal ndam quoi. combat xaar xeex xalaat naa si xeex xalaat naa si diire tuuti quoi yaakaaruma mu gaaw nag quoi lii man maa la ko wax en tout cas lu mën a am ak dal gagné combat bi quoi. ana adversaire yi. adversaire yi pël ñooy daw li bi ëppal na ñëpp ubbil na ñëpp buntam ndax lamb boo buñ la buñ la yaakaaree aussi nekk sa métier nga bëgg a toog lu mat cinq ans bëri ba ñu ñu di compétir. wax ne ku xam-xam ne bëri dul nga no xamee ko waa moo tax adversaire yi nañ ñëw ñu bëri vraiment loolu mooy yoon dinaa la seet si ñu wax waaw incha maa ngi lay di la si waaw mooy pël maa ngi ziar pël ana ci loolu waaw maa ngi sant yàlla bu wér borom combat bi maa ngi waajal rek ah di ñaanal sama adversaire mu dugal médical bi yàlla may ko tan ñu bëri combat bi ñaari laay war a bëri de waaw ñaari laay ñoo war a bëri waaw bi ah original wala tegu leen de fekk ngeen bëre ba pare ñu soog a xam kuy original waaw loolu leer na mais ci kattan yàlla suñu bëree ba noppi dina xam ka mooy original laay bi waaw wàccaay bi sa ñaata weer yàgg na et puis métti na quoi combat ma dem na 4 mois comme moom dafa gaañu maa ngi koy ñaanal wér mu delluwaati entraînement lu la booleeg jam téeri lu la booleeg jam téeri lu la booleeg jam téeri waaw jam téeri waaw tey tund jandeer ñoo xewle tey quoi da comme man tund jandeer laay défendre jam téeri jandeer lay défendre kon tey bu xewlee damay bàyyi sama activité yëpp ñëw dooleel ko parce que tey bu amee ndam jandeer yëpp moo am ndam parce que jandeer Abdourahmane Ndiaye Falang moo fa nekkoon nekk suñu maam xam nga téye lamb senegal kon Abdourahmane Ndiaye Falang tey bu fi génnee day ay sëtam ay ay ndonom téye lamb jandeer ku mel ni jamteer yi laay Pythagore Pythagore 2 xam nga ak ay ñaneen ak jérémi loolu rek tey moom indi fii quoi waaw moo ki nga xamante ne moo euh, Ahmed Deme noo gisee seen taxawaay waaw combat la bu neex Ahmed Deme daanaan la champion la mais tey dañuy ñaan yàlla jamteer yi mu am ndam bu seddu gi ci ko amee ndam am nañ ci yaakaar bu baax a baax parce que li mu liggéey xam nga ak li mu entraîné ci combat bi nii am nañ yaakaar ni combat bi du yàgg jamteer daal ko jël bu seddu ci ah, waaw kon yal na yàlla may sa adversaire tan waaw allah ko waaw waaw ma daan ko jël bu rëy nag parce que damaa soxla de damaa soxla na leer champion ndeysaan mu ngi ñaanal rakk ji ndam jarbaat bi lay ñaanal ndam kii mooy Xaadim Njaay Modima Caaroy sama xarit sama doomu ndey muy nit ku baax maa ngi lay nuyu la Pël maa ngi lay fay Pël naa jàmm wax yow nag am nga jàmm noo indee sa rakk waaw comme nit comme d'habitude rek ñaari mbër laa indi woon Papa Kane numéro 2 décision euh, arbitre la am di ko ñaanal mu jikko tey may indi ndax xale bu joxe cër. tey lan ngay yëg lan ngay yëg tey. ah. tey lan ngay yëg. non tey moom li may yëg mënu ma la ko ëppal ndax sama yaram ndax booy bi combat bi dañ ko soxla tey quoi jaaro xam nga tey daanaka suñu combat capital la. mu mel ni sa xol dafa fees man xaadim bi ma doon gis xaadim bi ma doon toogal ak xaadim bi ma gis tey dafa am changement lan la. combat bi tey ñu génn ci quoi ak jàmm soo ba léegi loolu lay wax ak Amet ndax amatuñ droit def erreur. mais nag yàlla ba tey liñ ko conseillé su ko bëree su fekkee liñ ko conseillé bëri na ko yàlla dinañu may ndab lu leer nañ ndax jëm ceeri dafa jël poids te champion la xeebuñu ko te ndaama la donc Amet de wàcc tolloo moom xeex ak moom benn loxo su dee bëggat ngeen nga xam ko gis lu mu jàpp ci moom bu ko tuuree mu dem. a def daa war a bëre daa war xeex wala lépp la indi. xeex lañ ko entraîné. ndax ku ne ne jëm ci ndaama la. bëre ndaama la. mais bu xeexee bu bu xeexee est-ce que dina ko arrangé. non xeex. Ometh Deme. Ometh Deme da koy tere. waaw da koy tere billaahi di nga ñaanal ndam lu sedd mais caare moo soxla ndam. maanaam tey lan ngeen indi lan ngeen indi jëm. waaw liggéey nañ li si war yëpp lépp liggéey li nga xamante li mooy may ndam tamit suñu garaan la suñu garaan bu baax la nga koy ñaanal daal yàlla mooy ko ndam lu sedd guy na caare moo ko soxla. xeex wala bëre. non dañuy xeex. waaw dañuy xeex waaw. ay jabadu maa ngi lay seet. Pël si aar naa la bu baax a sant nañ bu baax. tey la tey de. waaw tey la tey ñu ngi ñaan sa borom yàlla defal Ameth Deme ndam lu rëy te liggéey na ko nag tey dinañ gis lool si kanam bu soobee yàlla.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 maanaam ETDR moom bàyyiwul dara moomeelu réew mi la établissement Touba Darou Rahman yéen doomi réew mi yéen la fi nekk